Allez. Oui, entrez. salaamaaleykum. maaleykum salaam. aywa naa leen de. yow foo nekk foofu. ma chérie. embouteillage. aywa sama yaay. na ma naa ah, la. ma nga wax kër ga. ñu ngi fi. alhamdulilah ñu ngi fi alhamdulilah. chérie nga ba. lii daal nga def cachet moom ku leer. man. léegi c' est. maa ngi lay gis. maa bébé na mën naa la. waaw waaw chéri. aywaay moo doon nii daal nga def ci nuwaat. man kontaan naa de. fii nii lu moo dara yow. man dëgg fa yooyu am na jàmm. maa ngi nii rek. alhamdulilah moom la kii du ko doyal ci moom. kay toog kii moom maanaam baax na kon sama yow. ah yéen a mën a la waaye nag kenn demul des moom. kon baax na. waaw chéri. loolu it photo bi ñu bokk. yow léegi daa mujjee rafet. yow yow xam nga. xoolal sama robe bleue bi lii nice na de. waaye man maa ngi leen. kenn demul nga de chemise rek ngay def. xam nga nu ñuy def. ah dem si biir parce que su ma toogee fii du ma liggéey dara. parce que ni nga mel ni tey yéen ñaar ñii. waaw. soo ko egsi. waaw grande sœur na mu naa la. waaw Xadi. waaw yaa ngi ci jàmm. yow naa damaa guddee la. waaw soo ko taa yow ngaa yegg si. ah soo ko taa yow ngaa yegg si. maa ngi si biir. mbéy julli moo mel noonu.

bii laa bëgg nga sonn. nee ma nee ma bii laa bëgg nga defal teel ko. yàgg ma ko defal yàgg ma ko defal ma ne bu leen. na ràppal jàmm la lépp ay ñëw. ah maa sama morom rafet naa. na ràppal jàmm. dana trop fal maa la. garaaw ma sabal maa la ànd ak xol. waaw waa chéri chéri sama xarit. maa la tànnal jaune. ah kon man sa si dara ngay. ah oui yow. yaa ko moom yow ñoom ñoom maa rek doy na. yaa ko moom yaay borom. ah maa ngi si nag. yaa ko moom. baka dina. mu moom bii fan naa bii ñoo ànd. ñoo ànd waaw bu ko defee nag ma boole ko. boole ko bul nangu dara bu la neexee kot si bu la neexee ñëw. defal li xale naa defal ko ba mu baax defal ko ba mu baax. du ma nee bu leen du ma nee bu leen su paree woo ma dara. bii nag bàjjanam laa bëgg nga joxal ma ko. dina ko jot xam baay. dina ko jot bu soobee yàlla bàjjan dina ko jot. ñeenti ñi damaa bëgg képp ku ma fàtte nga joxal ma lii. xoolal noo ko defaree ba mu rafet. mu rafet. rafet yi macha allah wax dëgg fa nekk yàlla indi woo fi juub te demoo ci mètre mille franc yi. dañu laa ko fi indi. jërëjëf comme papaam dundatu. waaw jox ko la ko papaam rek mu ñëw ko sax. bu soobee yàlla naa ko def. grande sœur. yaa ko moom yaay borom. Ya, gue pengen rumah deh. Ada rumahnya udah. Ah, Lebet juga. Oh, suka buka wahe mom lebet. Buka wahe mom lebet. Wama, li orang tadi dah. Li udah kakak ada dah kau jual mandek, mau kau jual. Terang kan duka johe? Masya Allah, masya Allah. xeeb naa ko trop nag ndax man yow lu ma la defal yaa beraani ak sama mag kii séeréer bi bi rafet na te tubaabe gis nga sama day kon de laa demal mu yàkkati ma ah yow laa xaar nga ne mu yàkkati ma nag yow yow seex yow yaa bon yaa bokk bon seex ku naan góor baax na yow de sa baay a tax seex seex ba nga dee bay takk ñaari jabar te mënoo leen a yemale danga leen di fase kenn ku ne dem seex mi jël li nga am ak li nga am yëpp jox sa ñaari seex amul teraanga bu mu fi àndiwul xadi xadi teraanga du teraanga yow yegg na ko fi sama gàcce tey gi nag du ma ko toogaale mu tey lu guddi guddi guddi man duuf seen laay fanaan kii du ma ko toogaale waaye. pare. parewu ma damaa noppi. waaw. barki démb ka moom amal fukki junni fii. wax nga dëgg sama fukki junni laa bëgg nga def ko sama loxo. waaw d' fukki junni yooyu nga ma abal soixante quinze mille laa dencoon fukki junni yooyu laa si jëndee xar mii ngay gis tey njëkk courant mu ngi fi ndox mu ngi fi lenn lu may jël di ko pasar pasaree si dëkk bi te yéen ñaar képp laa yemale. damaa bëgg sa xel mi li si nekk nga génn ko bu baax. Cheikh Cheikh yow laa waxal yow nga ne xadi teraanga ju réy ji mu def ci kër gi yëpp joxoo ko dërëm. déggoo li ma la wax aw ma lu ma jox kenn ok. Hmm. Cheikh Ba Mbac xam ne ma ko wër nii de waaye xaaral ma ñëw defaral la caakiri bu seet bu buy nga naan. non bëgguma caakiri. lu loo bëgg. attaaya rek laal na mu des. tey ma attaaya yàlla ngéwén yow waxati nga ma sama foofu attaaya rek laay def leen nag naa ko xamal. ba xale dugg ci kër gi ba tey ma xoolatoo ma yow tuuti nga may xool Cheikh. Cheikh xool ma xool li ma def ci tey ba. li nga def xool. bu ko nga mer. waa yaa ci jàmm. maa ngi sant yàlla baax ngeen siyaar. ah yàlla. waaw dëgg la ci jàmm. ñu sant yàlla ana sa doomi sukka yi. waaw doomi sukka ah, naa la xamee naa la ci gone yi. dëgg naa la ci gone yi. ngeen def nag. ñoo ngi yéen a ci jàmm. ñu sant yàlla baax ci sëy. waaw maa ngi ci ah ñu ngi góorgóorlu daal gone bëgg naa ci jom ak fulla ak fay rawatina jigéen ndax suñu jamono ji dafa di jamono ji yàq ba sutura dafa jeex lépp tumuraange dara amatul moo tax ñu mel ni yéen yéen a war a góorgóorlu roy seen nday na parce que yow yow sa yaay ku baax jërëjëf jëf na nga góorgóorlu jërëjëf jërëjëf mbaa jàmm waa euh, ah, dafa daa julli ji woon jëkkër loolu la ma tàggu te xam naa ni bu ñëwul tey ci guddi daal xam naa ni dina loolu la ñu ko waaw papa comme que fekkuma ko fekk la fi te yaay kilifa te yaay ñu boole ñun ñëpp uuf li ma ko doy mën naa la ko wax. dafa yoroon natt. Mhm. natt bi fii si koñ ma bokk ci man ak samay moroom. Mhm. ba ma waree teejil nag yàgg na yàggaay bu nga xamante ni foo ko natt rek weesu na ko. Mhm. heure bu fi ñëwee di ko laaj sama xaalis mu may daw la naa man tey suba ëllëg. te nag wax dëgg neex yaa mun naa muñ a muñ ba sama bool sama boolu muñukaay dafa fees fu mu nekk nii tey nag dama fee ñëwoon rek pour waslu ci àq pour mu fay ma sama xaalis ndax soxla naa ko loolu sax euh, nga baal ma àq tur bi fàttali ma sa tur mimi waa kay waa góor euh, yow sa nat xam naa ni kersa mën na laa jàpp ci nga am loo xam te dooma ko ñi may wax yow sa natt tegg nañ ko teggi maa ko dëgg ci biir néeg bi mu wax ba dënk génn sa tur tegg na natt bi du téeméeri jël ak cinq cent mille la teggi na natt ba waa papa nan lañ mën a teggee sam natt te man yëguma ko da koo dem xuttee ko ay gani laam ak i mbaseer ak i takkaayam duy walisam ba muy ñaari walis mu gàdd ko teg fii la ko teg ci buntu néeg ah papa su ko xadi defee bett na ma de jéggi ñu nag ma man baayam jéggi ndeyam yóbbul ko ndayi jëkkëram taal ay jàmbur bàyyi ndeyam bàyyi baayam waaye alhamdulilahi rabil alamina a ñëw ndeyam xaatum la julee waroon naa xool ci ndeyam bu teraloon ndeyam tey jii lii lépp man nag damay simaata benn yoon rek laay doy te ku ma xam ci tund wii kii nga li tund wii ma xam fi may tëjee nag sama kàddu lenn képp la soo amul ak man ak fula fayda doo jox sa koppar. <laughs> loolu yoon am na nag da teg ko yoon mu fay la say koppar man nag comme kilifa laa dinaa doxalee fi kilifa dinaa àgg ci biir jël sama téléphone woo jëkkëram wax ko moom ndax ëllëg a tax kilifa noonu lay may ma tuuti. ah ah waaw kay xale eh kay kay kay kay kay kay kay xale yaa bon yaa yées yaa bon man mënoo maa toroxal doom ju bon xeeb say waajur fonk ko waajur jàmbur ana mi kaay sa sàcc ngi nii jàppal bu la rawee doo fay. laa lay la laa sàcc bee wayu bi. soo ko jëloo keneen say goro doo ko dem wuti ji nga dem liggéey ko man li may nag dama koo liggéey 那个